bu dee ñebbe yi moom it juróom benni bërigo bu dee gerte ñetti bërigo ak juróom ñaar fukki kilo ak juróom loole nag saa ñoree rek génne ko war na ja ndax waatoo xaqahu yow ma xasaadihi ji suñ borom wax lañ ca war a génn mooy la nga ca am mate matee nisaab